qui kii ñu yor mo signature ci aduna et je me demande d'ailleurs parce que ce que les gens ne comprennent pas on waxé le 13 né dañuy def déclaration de politique générale mais est-ce que xam nga né suñuy partenaires financiers ñi nga xam né Sénégal day ak mais est-ce que nous ngeen ne ñooñu ñëpp carton d'invitation pour ñu ñëw Assemblée nationale Nous waroon ñëw aussi ñooñu nga xam ne président day signé ak ñoom ñooñu bi ñu leen yëgalee ne déclaration de politique générale amul mais ñooñu gàcce la ñu am mais man nag bettu non non non xam nga yenn saa yi dama doon wax yenn saa yi ma wax dara ci Macky Sall gars yi ne non mais Bougane mi dafa xam Macky Sall trop Bougane dafa ñeme Macky Sall trop ma ne leen ñemewuma ko xamuma ko mais dama ko jang mais gis nga Il y dem assemblée nationale en fait musul sax dem musul pour dem pourquoi parce que mbaqat la xam nga ragal ci Sénégal le premier ragal du Sénégal c'est Ousmane Sonko la preuve ba ngeen ko déggee muy wax ne wuy dem naa seetaani dem naa gisi sama yaay tàggu naa ko waxtaan naa moom nangam nangam loo leen si dégg dafa dem fële toog dafa dem fële toog fa c'est juste pour vous dire nit ki lan ko dégg muy xëbar xëbari di ubbi dënn dara nekku fa mbaqat la boo xam ne bu nee tëll mu départ ku ne gis na vidéo mi nga xam ne mu ngay dugg ci garage boobu ñu ubbi woon Parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe L'Assemblée assemblée nationale après gars y ne non non non On ne war pas aller à assemblée nationale Je ne pas aller Vous a Ousmane Sonko ci débat contradictoire non d'accord ma tontul même si dajale ay nitam day ay journalistes yo xamné dicté préparé la da poser ma poser question ma tontu ñu suruxal la daal di lay yóbbante affaire bi nga eh, dóor gérer daal di zembrer et puis muy loolu c'est juste pour vous dire c'est juste pour vous faire comprendre ban niveau la nekk moom mi nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko alors li am solo nag mooy ne musul nangu wuy ji suñu ay institution musul nangu wuy ji suñu ay institution nangu wul wuy ji procureur wul wuy ji commission d'enquête parlementaire biñ fi taxawalam ba ko wowe ci ciowal Adji Sarr ak mambay nya wuy ji wul mais légui du mom moy moy premier ministre non mais tay amna latitude lamu don wax ne dañuy manipuler justice bi mais justice bi ni ken manipuler wu ko ah ci sama xanaa du ñàkk parfois rek ñu yónnee ko vidéo ne ko ma jàpp waa ji wala ma bàyyi moo ko wan dafa tasle maanaam lu nit di diil moom bu yoboo nga ànd ak yàlla te xam looy wax du du du ne nitu dëgg la de maanaam lammiñ bi moo mënul téye secret lammiñ bi mënta téye secret la preuve la mu waxtaan ak Diomaye laata Diomaye di voyager live na wax ñu ko bi Diomaye ñëwee def discours solennel am daanaka da doon da doon da doon waxaat rek parce que li mu doon wax yëpp ñun xam nañ la preuve bu ngeen fàttalikoo moom Diomaye bi muy def discours am bi muy wax wolof bi man posté naa sama bi muy posté moom bi muy def discours am deuxième partie bi man njiitu gëm sa bopp posté naa sama réaction parce que fekk na man bind naa la may bind ba pare parce que xam naa la ma doon wax mais kon nit kooku du nit ko xamné nit ku ñu wara bayyi xel la du nit ko xamné nit ku nit ñi wara jox seen ëllëg la parce que nak tay ji li xew ci réew mi bu ngeen ko xoolee yéen ñëpp xam ngeen ne moom Ousmane Sonko daf ci am part de responsabilité parce que daaw rek daaw bu mbeuk mi amane ñit ñi dé day kamu né ciuné lañu xamuñu dara xamuñu ni ñu yoré réew mi mais mok ñoñu ñoo parce que man mo mës nek sama gëm-gëm man dama mës gëm né mom Ousmane Sonko ak ñoñu ñu fi jëlé ñoo yem ñee tane ko tout sax parce que ñi au moins am nañu expérience ci nguur mom Ousmane Sonko amul expérience ci dara dag juuti dong lu musa def si aduna Non, mais c'est la réalité. Mais dites-moi en vérité, Ousmane Sonko, voyez ce mbindaanam ak gardien avez ci vous këram vous a liggéeyloo yow mii yor le site internet au moins yow un ngi un sa na caméraman boo des infographiste des ne di nga un ci roq bi business am na sax benn restaurant bu ñu tuddee woon le tabouret xaw ma ban bi mais mosu dox dara dox